wute yaa ngi gën soo ama mawlidi banak mu di ba yónneen ñëwee wute yaa ngi gënu soo ba nag di amal fili yàlla ku jóg taxaw màggal yonente bi yal na ko màggal déwén nanu maase àndandoo jóg taxaw ca kaw màggal ama mawlidi يقبلك مدعم الفيل يا الله نغي غنا سوا تاريخ با مدعم الفيل يا الله نبي موي ان ما ابرد حقنا يا ديور ما بكم بترى بالعافية الله tàggat ña yam ya ma bi bil arsiya nabi mooy ama amraxata àggat ña yam ya di wër ma bi kam batara bil arsiya Allah gajjan yom mabbi mabbi kambatara bil asiya mabbi xaalat malaikatu amani yawma bada mabbi tarbiyatil muhtari Allah الملائكة رحماني يوم بدا مرنا بيد النار يلا محمد ملاك يا ngay dagaan buur yàlla ngi ko yor محمدنا في سماء الأرض يلا ملاك يا ngay dagaan buur yàlla ngi ko yor محمدنا malaaka yaa ngay dagaan buur yàlla ngir dëgg muhammadan fi samawal ardi yàlla malaaka yaa ngay dagaan buur yàlla ngir dëgg muhammadan fi samawal ardi yàlla seydina muhammad malaaka yaa ngay dagaan buur yàlla ngir dëgg مدنا في السماء والأرض يا الله ملاك يا مدنا بريا لغير مدنا في السماء والأرض سيدنا محمد ملاك يا غيدغا بريا لغير بغير مدنا في السماء والأرض يا الله malaaka yaa ngay tagga yàlla ngir bëgg yàlla waddana waddana bi sama yam yàlla muhammad malaaka bi sama yàlla malaaka yaa ngay yónnani yaa gana rabbuna waaw urna lina melo waaw الجوانب والآفاق الله ملاك يا ليلة الأمر يا مدن وتنافس يا الله نريا ربنا ربنا نولنا ملو ملو بجوانب والآفاق يلا ملاك يا ليتك بر يلا مدنا مدنا بسمان يا الله سيدنا محمد نريا عنا ربنا ورنا لنا لله الجوانب والآثار الله ملك يا ملك بر يلا بر بك محمدنا سيدنا محمد يا حل يا نعلو نعم مين لجل والأباكيه والأوكاه يلا ملاك يا غيدك bur yàlla ngir bëgg na ma danoo sidina muhammad jaaxal yaa nay yàlla nana may du ndigal al abadihi wal awkaari yàlla malaaka yaa ngay dagal yàlla ngir bëgg yor ma danoo sidina Muhammad janaaw ya na yàlla nooy Mustafa di ko xool wokki naati mal kulli yàlla malaaka yaa ngi daga bur yàlla ngir ba ko ali ñëpp la dem alimatu sahadi moo yor Mustafa la malaaka yaa ngay daga bur yàlla ramadana bi sama am wa darra bi duri saytu yaa awa albano yeneen ba seex weenu ndey jooram yàlla bur yàlla ngir bëgg yor Muhammadana Seydina Muhammad Ali ma doo lu lay yor bu rafet bu rafet ngir yaari at la ko nampal waaye def ni nu màgg Seydina Muhammad waaye bi jar na ko de la ko nampal firnde yàlla sidina Muhammad Suwayb dun mas na ko nampal Abu Lahab warel ko warel ko lam ko nampal wóor na yàlla la ilaha illallah Muhammadu rasulullah yar bu rafet ngir yàlla ak la ko nampal firnde yàlla sidina Muhammad bur Yàlla fay na ko dàq fii fal asa bi xadan ci yëpp altine ngir njool mag Yàlla limato ya rasul rasulullah yor bu rafet ñaari at la ko nàmpal fer na Yàlla sidina Muhammad yetti weer la taxaw ànd ak leel ya di dox juróomi weer la dër mat sëkk yàlla ànd ak leel ya leel ya di dox juróomi weer la dër Seydina Muhammad magu bisam moo di magu weer ci doomi arab rabbi an ad ad ma dim lim fa yàlla رب محمد وكلم الناس لما بتاسدين سوء أن خيالا كلم الناس لما بتاسدين suuf ko wele ni jàndam lompa ñuul la fa ñuul di pele pele Allah xalifa Allah Mustafa lompa ñuul la fa ñuul di pele pele Allah xalifa Allah nabi malaaka ñëw xadd na mu tabal ca yaari loxo أذكرك كم يا الله ملاك يوم حدنم تبرك على الخوف رخصكم يكوك كم يا الله بخاتم كو تامبي كو فباتن ببيس موت لا إله إلا الله ودي الله باتن باتن باتن وتجد ملائكة ديوان يا الله ملائكة يا الله سيدنا محمد درجة رجل جلي ملائكة سيدنا محمد درجة seydina muhammad sa daraja raw na leen junni malaayika musawa raw nga leen junni malaayika xayral wara sa daraja ëpp na leen junni malaayika

الورى صدر الحكم لدني ملائكة خير الورى درجة ملائكة رب لدني ملائكة الورى صدر الحكم لدني ملائكة خير الورى صدر سوار بلن ني ملائكة سوار بلن ني ملائكة سوار بلن سوار بلن ني ملائكة سوار غلي ملائكة سوار غلي ملائكة سوار غلي ملائكة